nee na am na mbégte mu rëy rëy rey moo xam ne menn mbégte mënu koo mënu koo dab nee na gannaaw ba loolu wéyee kaaraange mënta ñàkk te ku ne xam na ni maam Cheikh mooy kaaraange ak yoon wi loolu ku ne xam na ko ndax moo ko jëkke woon muy dox ba jamono agsi fii doxinu jamono nag day soppiku kon nag na gën a leer kaaraange gi si dëkk bii tey gën nañ leen koo dénk gën nañ leen koo dénk gën nañ nu koo dénk nun njabootu Cheikh Ibra Fall la si gën a metti nag mu gën a metti sëñ bi gën noo naqari mooy politique si dëkk biir dëkk bi looloo nañ ko jaare si aw yoon waaw waaw sëriñ bi nee na dëkk bi liñ ci gën a bañ mooy politique mën na noo seet feneen fu ñu koy defee nag yawma wujuhu sawadata biyadum ajrul ladhi